الحمد لله البديع sëñ Maam Mor ban yëg-yëg ngay am boo ñëwee ci tool yi Serigne Saliou yi eh, di xel ko. yëg-yëg bu doy waar yëg bu yéeme lool. di di kontaan loolu ci yu mel nii ndax xam nga boo nekkee ci bërëb yu sore yu mel ne yu mel nii doo ko doo ko am moo tax ren ñu mobiliser sama gars yi yëpp foofu lañ jógee jógee Rissator ñëw fii bu baaxee ci liggéey bi mais bi ñëwee yëg nañ yëg-yëg boo xam ni wax dëgg yàlla gën nañ ko yëg loolu te jàpp naa ni fiir lañ ko mën a amee fii ci bërëb bu sell bi ñi ngi am yëg-yëg bu kawe kawe kawe kawe boo xam ni mënuñu ko awee lu toll Sëriñ Saaliw yi nga xam ne ñu ngi fi yaakaare barke ñu ngi fi yaakaare ak njëggal ñu ngi fi yaakaare ngërëmul Sëriñ Tuubaa هدي النبي يا دلو ngi sant bu baax ci teew gi ma teew xel koom xam naa ne ba ma fi gëjeeg léegi yàgg na depuis 2006 ba léegi waaye wax dëgg fa yàlla xel koom gi ni ma ko gisee ak ni ma ko yaakaare woon wax dëgg yàlla kawe na sama njoor ndax boobu léegi liggéey bi ma fiy yëg maanaam fa ma nekk sax liggéey boobu yëguma ko fa di santaat yàlla bu baax ci teew gi ma teew xel koom di santaat sëriñ bi santaane liggéey bi dëgg yàlla boobu ba léegi ñu ngi ci liggéey bi te ñu ngi koy sellal di ko taaral comme ni nga ko bëggee ndax biñ jógee Rissaatol ñëw fii dara taxu ñoo jug lu dul liggéeyal sëriñ bi ndax liggéeyal sëriñ bi moom boo ñëwee ba xel ko moom jàpp naan loolu rek moo la war di sant yàlla di ñaan yàlla di ko fekke ay at yi baree baree baree baree bëri di ñaanal sëriñ Seex mi nga xamante ne moo ko santaane yàlla bàyyi ko fi mu gën ñoo gën koo kàttanal ba ñu gën a ànd ak moom ci liggéey am na solo lool lool lool di sant yàlla bu baax ci liggéey bi. ah xanaa mbégte rek la ñu ñëwee fii à chaque fois suñu ñëwee euh, parce que dañuy kontaan si liggéeyal sëñ bi sëñ bi joxe ndigal pour ñu ñëw ñu ñëw fii liggéeyal ko liggéey bi set ñu ñëpp ñu bokk ko sant yàlla daal lañ ciy wax. lan ngay soññ sa morom yi nga bàyyi te tollook ñoom génération. ah xanaa ñu ñëw ci liggéey bi rek ndax sëñ bi moom ñëpp la fi nekkal te bu wootee ñu ñëpp a war a ñëw loolu ban njëriñ nga gis ci ñëw Xelcom ah chaque année daal ma gis si taw féex chaque année ma gis si taw féex macha allah. alhamdulillah الحمد